بسم الله يكفيني أقدر يا الله صلي بقاء بفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما ذراعت لذيك يا الله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 عزاري ملاسي أيو برامتي على أولا يدر أن منك يا الله مليك يميني وعقل بزول يا مليك بعائزان بن بيجو دين منك يا الله خدست سربيا يا قدوس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويوم سيبيتي إن منك يا الله أنت سلام ياسي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 day Cheikh mun Muntaxa ñu ngi lay siyaare bu baax kàddu yi ma lay jox mooy kàddu yi taalube yi ak dëkkandoo yi ci dëkk bi ñoom ñëpp nee na ñu ngi sant sunu borom bu baax nee na bi nga tegee xeeru jumaa ji dañoo ñaanoon ñoom ñëpp nga ubbil si leen ko da waxoon bi ñuy teg xeer wi itam da ngaa waxoon ne yàlla na leen ci sëriñ Touba gàttandu sëñ Touba nag gàttandu gàttandu nañu ci ndax nun ñëpp ak bokki taalibe yi noo liggéey noo liggéey néegub yàlla bi kon lépp sëriñ bee kon nag wax ji sant rek la ndax yoon wi nga xam ne teg nga nu ci mooy mooy bëgg noo gindi ci sëriñ bi te gindiku googu am na ba noppi nee na nee na sëriñ Moussa mi nga xam ne mooy seen jëwriñ jiite njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gépp nee na nun ñépp la taxawu ci gindi googu ngenu gindi waaye bëgg gi dafay mel ne nee na loolu dafa mel ne moom moo ci raw nee na loolu mu ngi la koy seereel waaye nee na li nga xam ne moom la Serigne Moussa bëgg ci nun te mooy moo doonoon bëggug sëriñ Moustapha ci nun nee na loolu nag yow mii yaa ko ànd ak sëñ Moussa def ko ci ñoom muy topp sëriñ bi te tegatu ci siraatul mustaqim donc yi ma ko àndal nag nga xam ne ñoom ñooy jëwriñu sëriñ Bassirou yi fi nekkoon nee na dongo yooyu desaluñ dara ci seenu wet këri diine yi ma fi nekkal. nee na këri diine yi nga xam ne ñoom laa bokkal nekk ci tund wi. bëgg nañu ma bëggin woo xam ne. wóolu nañ ma kóolute goo xam ne. ndigal yooyu ndigal yooyu ndigal nga nu joxoon rek. moo tax loolu lépp mën a am. ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu nguur itam. Alaaji Mustafaa Ñas mi nga xam ne. xam nañu sa diggante ak moom. muy jàpp sëriñ Moustapha goog démb ga am nañu wëllëre ci ni mu ko bëggee moom sëriñ Mbaye Thiam ministre yi itam nee na ñaanoon na la ko ca poroxaan ngir nga ñëw ubbil ñu jumaa ji lo loolu yëpp nag cofeel guñ am ci man rek la mbooleem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu nguur nekk ci département Nioro Foundiougne ak département bu Foundiougne ak bu Kaolack nee na ñooñu ñëpp am na ma ak ñoom jàmm sa doom alimaane nekk ca Paos hmm? baas yi moo ko fi indi ak groupe ak télé nee na loolu lépp nag nee na noo ngi la koy sant yow bu baax danoo lott ci wax ji fédération bi fi nekk nag nga xam ne ni ma ko waxee woon barab bi lu fi taxaw rek hmm? bi nga nekkee sëriñ Basiru la ba tey ngay sëñ Touba lii mooy addee fédération bi muy addee sëñ Touba lii mooy addee fédération bi addee Cheikh Mouhamadul Mountakha nee na ni mu la ko daan yalwaane rek xam nañ sa lépp sëriñ bi la waaye li jëm ci yow nee na li jëm ci yow mi nga lay yalwaat mu dem ci sa yitte lii nag nee na man dongo bi maa koy tuube moom day am nañ mbégte lool di gën a santaat sunu boroom di gën a santaat nu boole ak sëriñ bi di gën a santaat sëriñ bi mi nu lépp pàggu bi yaatu na lool te rëy waaye Cheikh Ibrahima mii rek doy na ci kon misaal tey ci taxawaayam bii doy na sëkk cib soññee wax na ko ci biir waxam. wax na ko ci biir waxam. sant bu baax. sant bu baax. fas yéene rek. fas nekkal sëriñ bi. nekkal sëriñ ci ndono lim nu fi bàyyil. loolu mënees na koo tënk. wéetal yàlla rek doyloo sëriñ bi ci lépp loolu dana nu yóbbaale lépp loolu loolu rek kon mooy soññe bi taxawaayu Cheikh Ibrahima yi dafa mel ne dara jëru cee dolli soññe bu mat sëkk la waxuma la sax waxuma la sax jur giñ ko jur ñoom doom yi ma jur waaye man ci sama bopp sax taxawaayam bii soññ na ma am naa ci bànneex bu rëy bu dalum xel ak ak dalum xel ak dolli kuk yaakaar noonu rekk la demee Cheikh Ibra wax na lépp dara jëru cee dolli ñu ngi sant bu baax a baax a baax bokk yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci taxawaayam bi mooy muy bokki diine yi bokki taalibe yi ñépp xam nañu ne ànd nañu ak moom ngir ngir taxawaayam rek waaye may wax ne taxawaay damay wax ne taxawaay moo munta ñàkk moo waaye moo jafe nag loolu Cheikh Ibra dalal nu ci dalal na ci sunum xel bu baax a baax wa waaye maa ngi sant ñëpp bokki jullit yi bokki diine yi kilifa yi bokki taalibe yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen gën a dénk nag Cheikh Ibra xam naa ne ànd ngeen ak moom ndax da ngeen a gis rek moom mu nekk ci dëgg li muy lislaam akub taalibe rek loolu kon jëru leen cee wax dara ndax gisal ngeen ko seen bopp xamal ngeen ko seen bopp jëfal ngeen ko itam seen bopp kon nag noo ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan rek sunu borom mi nga xam ne mooy def ak a dindi maa ngi koy ñaan ci barkeb sëriñ Touba amin mu gën noo gàttandoog tawféexi Serigne Touba. ba li nu sémb lépp te nun ñëpp nu bokk ko sunu borom dolli nu ci kattan ba nu gën cee mën a nekk gën cee jéem a sunu yéene yéene ji moom yemiwul fenn waaye nu am kattan rek gunu gën a nekkee ci yéene ji fas ci yéene sax dàkk ci liggéeyal sëriñ bi liggéeyal ko ci lislaam liggéeyal ko ci lépp lu baax loolu moom la nu fi bàyyil kon nag noo ngi sant ñëpp jërë ngeen jëf sunu xol sedd na lool li nu bëgg a wax jëru ko. teewaay bi kon ndax suñ teewaay bi nun ñëpp loolu rek doy na màndarga doy na sëkk xam ne kon hmm? noo ngi koy jéem a nekkal ca yoon wa noo ngi jéem a nekk ca yoon wa ni mu ko waxee ci waxam nu sax dakk teg sunu tànk ci siraatul mustaqim sax ca dakk rek loolu rek mooy li ci nekk jërë ngeen jëf